ji 27 août 2024 ñu leen di ziar bu baax baax yéen ñi nga xamante ni yéen ay internaute DKR 221 mu mel ni nag euh, xam ngeen ko DKR 221. daf leen i taataanal la bonne information di leen ko serviral bu baax a baax donc ci mardi bi mu mel ci information yooyu bokk na ci eh, nomination bi nga xamante ni Aminata Touré daal dina koy am eh, niki tey ñu daal di koy eh, tab def ko au représentant du président de la République moom mi nga xamante ni moo di Aminata ture ñu gën koo xam ci Mimi Touré Mimi Mimi Touré moomee nag ñuy fàttali ni bokkoon na ci coalition Diomaye 2024 boobaak léegi nag nekk eh, ku ci nekk naan eh, lan la ñuy xaar ci moom ban poste lañ ko war a jox ñenn ñi doon pressentir sax ndax eh, bëgguñu koo jox ngir mu daal di nekk présidente bu assemblée nationale am déet waaye na question yooyu yëpp sénégalais ñu ngi ko doon posé wu ndax ku ne gis na. te gi nga xamante ni amoon na ko ñeel campagne euh, présidentielle bi entre autres waaye nag ni ki tey mu mel ni daal dinañ koy nommé def ko o représentant du président euh, de la république loolu nekk information bu nga xamante ni euh, mën nañu ko jàpp waaye nag mën nañoo dikkaat yi tamit ci dossier bi nga xamante ni dafa ñeel Aziz Dabala ak Waly nga xamante ni DKR 221 boobaak léegi tamit mu ngi ciy def liggéey bu am solo ndax comme ni ngeen ko xamee division des investigations criminelles mi ngi woon ci nag dossier bu ni mel doon amal ay enquêtes yu am solo am ay nit yu nga xamante ni interpellé woon nañ leen tolloon ci euh, six personnes ñu doon nag seet euh, ki nga xamante ni moo di septième personne bi di woo ci turu Fallou Diop ñu ñuy xamal ni Fallou Diop moomu sax euh, ni ki tey daal di nañ koy nag teg loxo ndax way juróom bu góor moo ko nag daal di andi jox ko loxol yoon jébbal ko yoon donc mën nañoo jàpp ni jamono ji enquête bi foofee la euh, toll euh, ci fàttali ñi nga xamante ni tey ñoom la ñu interpellé ñuy présumé meurtrier yi tey euh, def nañu face au procureur bu tribunal bu grande instance bu Pikine mu mel ni nag ñooñee nga xamante ni ñoom la ñu interpellé di wuyoo ci turu Euh, Mamadou Lamine Diaw euh, Serigne euh, Sarr ñu gën koo xam ci ndës Oumar Gueye Assane Diaw Ousseynou Diaw Nabou Lay mi nga xamante ni moom itamit jur na coow bu baax a baax ndax ku ne xam na ni que amoon na amoon na benn relation bu particulière ak ki nga xamante ni moo di Aziz Dabala ku ci nekk naan loxoom mi ngi ci wala nekku ci en tout cas li wette wóor mooy du ñu ne loxoom mi ngi ci waaye wóolu nañ ko ci yoon mettre nañ ko en garde à vue ba léegi ni si ñoom ñi nga xamante ne ñoo di euh, ces présumés meurtriers yëpp ñu ngi am nañu li nga xamante ne moom la yoon di woowee retour de euh, parquet donc def nañ ay confrontation entre eux euh, ku ci nekk am nga tey ay accusation yoo xamante ne daanaka yëkkati nga ko teg ko ci sa ndoor du morom li mooy enquête bi ma ngay woy li nga xamante ni moo di retour de parquet moom la ñu am jamono ji nag li nga xamante ni moom la ñuy toppee euh, ñoom ñi nga xamante ni ñoo di présumé meurtrier yi bokk na si association de malfaiteurs assassinat acte de barbarie euh, vol aggravé waaye it complicité mu mel ni lii lee la ñuy toppee gum pour le moment ñi nga xamante ni ñoo di présumé meurtrier euh, yiree nga xamante ni euh, dañ leen di joxañ baaraamu tuuma ñeel affaire Abdoul Aziz Dabala ak Wali bilee nga xamante ni am na foofee ca Pikine ci côté technopole bi mu mel ni Euh, mbirum waykat bi lee di Sidi Diop bi tamit je pense que interpellé woon na sénégalais yu ci bëri euh, ndax nekkoon na actualité bu nga xamante ni ñu ngi doon xaar fan mujj waaye nag mujjee nañ ko bàyyi relaxé ko mu daal di dem ndax euh, ci fàttali moom dañ ko jàppoon ndax da doon dawal sans pour autant mu yor da doon dawal oto sans pour autant mu yor permis de conduire loolee lañ ko jàppee woon waaye nag ni ki tey di nañ koy bàyyi gannaaw bi mu woon ab garde à vue mu mel ni nag. Euh, beneen actualité bi nga xamante ni tamit mën nañ ci def euh, taxaw seetlu euh, dafa ñeel li nga xamante ni moo di convocation bi ñeel wàllum assemblée nationale ngir ñu mën a nag dissoudre conseil économique social et environnemental ak HCCT. di haut conseil des collectivités territoriales nga xamante ni euh, bokkoon na ci dige yi nga xamante ni euh, président Bassirou Diomaye Faye gi euh, bi mu doon def campagne électorale am ak sax yenn ci bind yi doon nañu wax ni que am na yenn institution wala yenn kuréel yi nga xamante ne bu ñu ñëwee ci boppu réew mi dinañu ko nag daal di dissoudre maanaam daal di koy seyal bu ko defee xaalis wala koppar gi nga xamante ni moo nekk fond boo xam ne dafa nekk foofu mën nañ ko jël servir ko à googu am feneen foo xamante ne dinañ ko fa euh, mën def ba tax na jamono ji daal di nañu nag convoqué l'Assemblée nationale ngir ñu mën a euh, dissoudre ñaari institution yooyu nga xamante ni moom laa ko waxee léegi di euh, conseil économique sociale et environnemental ak HCCT donc loolu yi tamit daal di nay nag am ñoo xam ne interpellé nañ leen parce que ne nañu lu mel est-ce que war naa mën a nekk ci jamono ji nga xamante ni ñu ngi xalaat na dañuy dissoudre l'Assemblée nationale lan moo ci mën a tukkee parce que xam dañ ni que jamono ji xëy na Euh, Benno Bokk Yaakaar moo am xëy na euh, une certaine majorité bien que nekkul majorité majorité boo xamante ni bu yaatoo yaatoo la yaatu la waaye nag bu fekkente ni euh, député yi nga xamante ni ñoo fare ci Benno Bokk Yaakaar d'accorduñu ngir ñu daal di nag dissoudre assemblée nationale boobu lan moo ci mën a nekk tey taxawaayu président de la république ndax bu fekkente ni ñoom d'accorduñu pour ñu dissoudre est-ce que président mën na daal di nag langaamu foofu ngir dissoudre l'assemblée nationale nekk benn question boo xamante ne ñu ngi koy posé wu parce que nag euh, dissolution wu assemblée nationale nekk na aussi beneen débat boo xamante ni daanaka euh, juddu na euh, sénégalais yi ku ci nekk yaa ngi ciy def taxaw seetlu donc jamono ji am na benn mbir moo xamante ni en tout cas président de la république daal dina koy wane di bëgg-bëggam ngir ñu daal di nag dissoudre Euh, institution yooyu ma wax léegi di conseil économique social et environnemental ak euh, euh, au conseil des collectivités territoriales donc nekk na mbir moo xam ne actualité la jamono ji nag ñuy xaar lan moo ci war a nekk tey taxawaayu ces députés parce que nag député yi daanaka ñoom ñoo fi war a mën a teewal askan bi waaye buñ fi teewal askan bi naka lañ war a mën a def ngir mën a permettre tey xaalis bi nga xamante ni moo nekk ci gafaga Sénégal ñu gën koo mën a yaxanal ñu ñu gën koo mën a yaxanal bu ko defee koppar euh, googu nga xamante ne moo nekk ay fonds nekk ci institution yooyu mën a servir à autre chose lan moo ci war a nekk tey taxawaayu député yi ñu ngi xaar ñu ngi xaar en tout cas mbir mi naka lay euh, tëddee après ndax euh, naka la wànnenti di mujjee ki gëtam waaye it bu fekkente ni ñoom d'accorduñu ci décision boobu nga xamante ne jamono ji Euh, président de la république taxaw na ngir daal di koy def CEL euh, euh, conseil économique social et environnemental ak t lan moo ci mën a nekk taxawaayam ndax daanaka sax am na ñu ñu ci doon sottanteel xalaat weccante si ay xalaat mu ne ñu que bu fekkente ni conseil économique social et environnemental assemblée nationale taxawul tey pour ñu d'accord ngir ñu mën koo dissoudre président de la république mën na la ngaamu foofu ngir dissoudre li nga xamante ni moo di l'assemblée nationale donc loolu nekk benn taxaw seetlu boo xamante ne daanaka mën nañ koo def waaye nag ñuy xaar ndax euh, mën nañ ni septembre aussi yàggatul ndax 12 euh, septembre rek bu jotee daanaka ñu ci bëri dañu xalaat ni président mën na dissoudre l'assemblée nationale nax euh, ci fàttali am na benn bataaxal boo xamante ni bindoon na ko daal di koy adressé conseil constitutionnel doon ko laaj ban waxtu moo baax tey ngir euh, euh, wala ban date tey la jàpp ni euh, mën nañu cee jëfandiku mën nañu ko jëfandikoo ngir mën a dissoudre l'Assemblée nationale de nekkoon nag benn laaj boo xamante ni njiital réew mii le président Bassirou Diomaye fay bindoon na ko daal di koy jagleel euh, conseil constitutionnel donc euh, jamono ji mën nañu ne loolu mën na ñëwaat euh, sur la table comme sujet de discussion boo xamante ni mën nañ ko débattre waaye it dissolution wu conseil économique social et environnemental yi tamit nekk beneen mbir boo nga xamante ni je pense que mën nañ ci def taxaw seetlu